Ah, jërë ngeen jëf waa xibaaru bambuk ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziare ñëw seen émission bu mujj di ganu campagne bi tey nag ñu am ci gan gu mag di Mansour Ndiaye nekk coordonnateur départemental bu PUR bokk ci coalition bi di wala intercoalition takku wàllu sàmm kàddu yi ñoom ñëpp nekk ci biir tey nag ñi mu war a teew fii defal ñu benn bilan ci 21 jours campagne yi xam ne jot nañ ko def moom nag moom la ñu war waxtaanee mais balaa booba moom mii di nañ ko yoon benn bref présentation ci ci moom ci lan lañ lan la jur lan lañ ci gis njëriñ lu lépp mu waxtaane ko ci biir kër gi kon balaa ñoo démarrer rek dañ koy bàyyi mu nuyoo mbokk yi ñu doogay séq waxtaan ak ki xam ne tey mooy suñu gañ nekk émission bu mujj ci campagne bi xam ne mooy campagne électorale bi maaleykum waa Koungheul asalaamaaleykum xibaar Bambouck mu ngi leen ñu nuyu yéen ñëpp di rafetlu jotaay bi di rafetlu taxawaay yi nga xam ne am ngeen ko ci biir département bi vraiment kontaan nañ si waa Pire kontaan nañ ci département bi kontaan nañ ci man nag maay Mansour Ndiaye responsable PUR euh, coordonnateur départemental vraiment PUR taxawaay yi nga xam ne am na ko ci biir département bi euh, taxawaay yi kenn du ko laam-laamee yaakaar naa ne su ma jumul depuis 2017 ba léegi mi ngi ci biir département bi te neuf communes yi nga xam ne nii euh, mi ngi ci biir département bi PUR am na fa ay responsable yi nga xam ne ñi ngi fa nekk kon taxawaay boobu doonul taxawaay bu yomb li nga xam ne nag mooy suñu taxawaay ak par rapport fi ñu toll ba tey ci lii ñu jublu di ay élections législatives yi nga xam ne nii nag euh, dañ ci amoon bokkoon ci benn coalition bi nga xam ne moo tudd sàmm sa kàddu sàmm sa kàddu boobu euh, ki ko jiite di Barthélémy Dias pur bokkoon ci taxawaay yi nga xam ne nag amoon na kungal amoon nañ ci candidat candidat bi mi ngi tuggoon Waagaan Faye ak ki ñuy wax añ Anca Sarr ñoom ñoo nekkoon Waagaan moo nekkoon candidat bi kee mooy candidat bi bi ñu demee ba ci biir euh, ba ñu xam ne nii liggéey bi nga xam ne moom lañ soxla ci biir département bu Koungheul piir soxla ko waa taxawu soxla ko mooy bi waagaan fay jiite ñu calculer lépp ne pàcc pàcc yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir département bi amul solo bu fekkee ne bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la PUR bëgg bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la la candidat di waagaan fay bëgg dëggula ci moom te ñu xam ne nii war nañ mën a lëkkaloo suñuy doole bi nga xam ne moom la Amadou Ba def ci Ndakaaru jël candidat am jox ko Barthélémy Dias kon loolu ñun war nañ ko mën a def ñun tamit def intercoalition ak wàllu loolu moo permettre ñu bàyyi suñu candidat dem ànd ak ak wàllu def nag euh, campagne bu am solo ci biir département di 21 jours yi waaw. ci loolu sax si la ñuy balaa ñuy ñëw sax nga ñëw ñu si euh, balaa ngeen di campagne da nekkoon di campagne sàmm sa kàddu comme ni nga ko waxee ba si yàgg ngeen toog gis ne da ngeen a war a mën a changer da ngeen a war a mën a boole seen i doole pour song ñi xam ne ñoom ngeen jëmal muy euh, euh, waa Pastef comme ni ñu ko mën a waxee seen seen candidat yi fi nekk mais yéen ngeen boole yéen opposition bi ndax diggante boobu noonu fekkutoon ngeen nekkoon ci seen i plan ba barte ñëw fii ngeen doo koy changer ànd ak ñoom. non boobu ñu ngi noonu suñu plan defoon nañ ay démarches parce que defoon nañ près de campagne ba commencé suñu campagne benn avant Barth di ñëw fekk nañu organiser loolu fekk nañu organiser loolu moo permettre Barth parce que comme programme woon na Koungheul boobu xam ne coalition euh, sàmm sa kàddu mi ngi fi kon benn avant Barth di ñëw la euh, coalition takk ak wàllu ñun ñu programme yi dinañ def ay analyse jour bi nga xam ne nag Barth ñëw na ci la explosé wu ci la ko Koungheul yëpp yëg ne loolu am na waaye benn avant ci ñi nga xam ne ñu ngi doon ci sàmm sa kàddu ak ñi nga ne ñu ngi nekkoon takku ak wàllu ñoom yëgoon nañ ko bien avant parti di ñëw. mais gis nañ ne mbir mi yemul yemul seulement kon matul carrément nañu ko waxee noonu parce que bu ñu waxee intercoalition dañuy wax ne tey gisuñ ci waa jàmm ak njëriñ te ñoom itam dañ ci war na bokk yenn parti bokku ci mais dafa mel ne ñaari lañ ci Koungheul te lii bu amee ku ci Ba moo ko dekkal ca Dakar la moo tax jàmm ak njëriñ bokk ci coalition intercoalition. Euh, jàmm ak njëriñ peut-être ñoom seen gis-gis. mooy ñu demal sañ bopp ñoom loolu lañ gis ci biir département bi waaye ñi nga xam ne ñooy coalition sàmm sa kàddu dañu gis ne loolu bariwul njëriñ dañuy xam ne ni mbir mi xàccandoo dóorandoo mooy tax euh, daan mën a am parce ñuy ñu yëkkati xëddu dañuy yëgandoo bu ñu yëgandoo xëdd bi du jóg li nga xam ne daal sàmm sa kàddu def na ko te xam ne mooy njëriñu Koungheul di jëriñu département bi yépp mooy ñu dem fekk ji takku ak wàllu ndaxte dañ fa gis ñaari candidat candidat yoo xam ne ni dañ idéal ci département bi la ma la motiver idéal boo lañ bëgg nga ñëw ci mooy Fanta Sall ak Madiama lan mooy lan bëgg a wax ci ñoom ñoom ñaari candidat waaw ñaari candidat yooyu wax ci ñoom dafay yomb ci man ndaxte ñoom ñaar ñëpp xam naa lañ gën lañ xam timit ci ci ci biir département bi ak diiran bi ñu ànd 21 jours yi. xam-xam boobu mooy tey ku ci mel ni Fanta Sall yaakaar naa ne fii waxuma la commune bu Koungheul waaye département bu Koungheul fépp foo dem ci biir département bi am na lu mu fa def. bu deful mine forage def na fa juma bu fa deful juma maye na fa ay mbana ay siège joxe na ay xalaat yoo xam ne sañ yoon yu bon ak dëkk bi département bi ku nekk xam ne yoon yu bon yi fi nekk ci biir département bi Fanda Sall taxaw na biir assemblée nationale def déclaration boobu te topp na loolu ba permettre lii nga xam ne mooy yoon bu Lour Escale yaakaar naa ne firnde la ci. ak ab Madiama moom. Madiama tamit wax ci moom dafay gën a yomb ndaxte benn avant lay liggéey Koungheul. Euh, le temps que muy laaj li nga xam ne mooy honorable député dafa am euh, benn zone boo xam ne muy zone de Saly te moom dëkkeewu fa tey su ko neexoon mu ne commune bu Ribot Escale laa dëkk maay maire bi foofu waaye liggéeyam yematul ci biir commune am kese dafa jàll commune am dem ci yeneen commune boo euh, tout récemment rek dama lay wax ne la commune bu Saly Escale dëkk bi ñuy wax Njabto ku nekku xamoon Njabto wala nga mos faa dem da nga gis dëkk bi deux parties la deux parties yooyu li tax mu am ko mooy benn pax bu ngande moo nekk ci diggante benn xur dafay def sax ba bu yàlla ji tawee nawet jot dëkk bee ñee duñ mën a ñëw fii ñii duñ mën a dem fee te li koy permettre pax boobu nag ma jama sekk euh, bi nga xam ne maire bi def na si analyse euh, début bi nekk ci 125 millions biir 125 millions bi que maire bi mënulee def muy budget bu mairie bu Saly Escale mënuñ kaa def te bind nañ budget bi envoyé ko au niveau national ñi nga xam ne ñoo yoroon nguur gi ñu jël budget bi ak accueillir nañ ko nangu nañ ko pour defar ko waaye temps bi diiran bi muy jël ñee mënuñ kaa xaar le maire de euh, Saly Escale bi mu xalaatee ne am na mbokk moo xam ne mi ngi tudd ma Madiama sekk mu ne naa ko déy affaire boobu bi mu ko ko déyee bi mu ko ko déyee dem dem dem ba ci biir bi mu demee ba ci biir Madiama sekk boobu moom moo yëkkati ne ko monsieur le maire euh, Sader Dieng loolu danañ ko defar incha allah rabi te duñ ci xaar dara na bagage yi ñëw ñu tàmbali bagage yooyu moo permettre mu ci 126 millions teg ci table te bi ñu ko fayee tout récemment yàggul dans deux mois ci gannaaw la ñu ko fay. te bi pont bi pare léegi yàgg na. mu nekk lu am solo kon daal choix bi noonu li leen motivé mooy que ne gis ngeen ne ñaari candidat yi bokk na ci ñaari candidat yi gën ci élection yi xam ne moom ngeen jëm kon yéen dafa mel ni avant PUR di di euh, déclaré ci kaw ne war ngeen bokk ci intercoalition bi yéen ñi nekkoon ci Koungheul gis ngeen ni mooy ñaari candidat yi gën. boobu gis nañ ko. parce que déclaration bi nga xam ne nii tey ñu mën nañu ko parce que PUR euh, amoon na candidat candidature ci élection yi. taxawu amoon na ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir coalition sàmm sa kàddu amoon nga ko waaye bi nga xam ne nii euh, ki nga xam ne mooy waagaan fay moom mu génn ci bi mu ci génnee nag loolu décision yooyu moom moo koy jël waaye daf koy waxtaan nekk waa coalition sàmm sa kàddu bi ñu ko waxtaanee ñëpp rafetlu ko tous les responsables rafetlu ko te rafetlu boobu ñu rafetlu ko moo permettre te gis-gis boobu mu am moom la coalition bi yëpp am ñëpp ànd d'accord ne ni ñii ñii ñu nangoo liggéey lañ ñii ñu taxu Koungheul lañ parce que yemuñ ci rôle député kese. mënoon nañ dem fee biir ensemble rek lépp loo xam ne département bi soxla na ko ñu jooyal lañ ko yem ci tout court. waaye dañuy def yeneen jëf yoo xam ne dafa romb euh, rôle député. loolu daal moo permettre sàmm sa kàddu ne ñii ku leen jàppale Koungheul dana avancé waxuma la ci wax waxuma la ci joxe. ay motifs yoo xam ne mi ngi ci biir département bi waaye ci njëriñ bi nga xam ne ñu ngi koy njëriñ biir département bi loolu moo permettre sàmm sa kàddu def taxawaay yooyu ci ñoom. mu nekk lu am solo moo ciy feggoog Mbaye Dieng Babacar Mbaye boo amee question boo xam ne man boobu tey suñu gan di Mansour Diécko ci PUR mais bokk Diécko encore ci intercoalition bi seen i candidat di Madiama Seck ak Fanta Sall ñu war a jëm ci campagne bi ñoom ñi waral ko wax na li ko motiver mu ànd ak ñoom tey boo amee question boo koy laaj waaw monsieur le coordonnateur man lu ma lay laaj mooy mën naa bu ma la nuyoo euh, gis nañ ne élection trente juillet deux mille 2022 PUR que euh, parti bu mag la parti de l'unité et du rassemblement bi nga xam ne effectivement ko ñëpp a ko ràññee sur le plan politique parce que amoon na ay député vraiment am représentativité nekkoon ci coalition Yewwi Askan Wi ak l'intercoalition Yewwi Takku Wallu Takku Sénégal tey ngeen war a dem ànd ak effectivement ñi nga xam ne démb àndoo leen woon ci élection boobu lu tax euh, pur jël position ànd ak sàmm sa kàddu que ànd ak Pastef waaw loolu dafay daal am solo mooy mu sàmm sa kàddu boobu yaakaar naa ne moo amutoon ci coalition euh, Yewwi Askan Wi suma jumul dafa am lu ñu tënkoon lu bëri àndoon ci législatif àndoon local bi ñu àndee ci loolu ñu ne dañuy dem présidentielle te ki nga xam ne nii moo dirigé woon Yewwi Askan Wi di la premier ministre Ousmane Sonko bi ko jiite woon euh, ñu ne woon bu ñuy dem élection présidentielle parti bu nekk na nga am candidat candidat boobu nga am nag bu ñu demee deuxième tour dafa yomb si ñun parce que li permettre mooy galgal yi nga xam ne mi ngi doon am ci nguur gi fi nekkoon lañ doon bañ jël benn candidat ci Yewwi Askan Wi galgal boobu am Yewwi Askan Wi du am candidat ñu ne nag képp koo xam ne yaa ngi ci biir coalition Yewwi Askan Wi na nga am candidat bañ amee nag ku nekk candidat ñu ne bu ñu demee deuxième tour ñun ñëpp nañ rassemblé waat bu ñu demee tamit ki nga xam ne tamit génn na raw gàddu parce que lépp mënoon na am te loolu moom moo am euh, bu ñu yeggee foofu nañ ñëpp àndaat waaye bi demee ba loolu am dafa mel ni li ñu tënkoon ci PV dafa li ñuy tënkoon ci njub ak jubal li ñuy tënkoon ak sàmm sa kàddu dara da ci amul loolu moo motivé parce que bu ñu ànd euh, nañu ànd si njub ak jubal waaye ànd boobu bu fekkee ne dafa am loo xam ne euh, wor lal na ko wala nga wane ni man maa fi ne ah ñun piir na dañuy jël seen engagement parce que nekk lu ñu fi kenn euh, nguur gu fi jaar yaakaar naa ne piir jàmmoor na ak yow te képp koo xam ne nii tey jot nga ci nguur piir am na nu mu ci taxawee ci yow yaakaar naa ne matuwaay yooyu mu taxaw ci yow waxuma la ci saayir wala ci baatin waaye ci luy nit teg bëtam ci sa campagne ci sa lépp ak sa feebar ak sa lépp boo xam ne ni Pire da ci jël ay engagement Pire daal engagement yooyu mu jël moo tax lépp loo xam ne nag def nañ ko ñu xam ne nag lépp lu ñu waxoon duñ la ci toppaat ne la sa waaye ñoo waxoon lii wala ñoo waxoon léegi boo ko boo si teguwul ñoom ñu seetlu ñuy def jël seen engagement bopp moo permettre Pire jël seen responsabilité bopp nekk créer bokk si coalition bi ñuy wax sàmm sa kàddu loolu moo indi moo sàmm sa kàddu sax waaw man mu nekk lu xam ne lu am solo la muy suñu candidat tey di euh, Mansour Ndiaye ñëw teewal intercoalition bi mais euh, seen candidat di fant Sall ak Madiama def ngeen 21 jours de campagne suba moo ci des mu ngeen di reposé ginnaaw dem ci euh, élection bi lan nga ñu mën wax ci 21 jours yi bi ngeen wëree département Koungheul lan ngeen gis ci nit ñi ak doléance yi ak nan ngeen yebee seen candidat. waaw man biir 21 jours yi dama ci dama ci dama ci ruus dama ci tiit ak par rapport élection yi nga xam ne moom lañ génn. ak euh, motif modification bi nga xam ne nii département bi jël nañ ko bi ñuy wax balaa ñuy wax 18 heures dégg nañ ñu ne wiiw Pastef waaye lu matul 8 mois département bi yëpp tayalaat ñëpp tayalaat ba dëkk boo am boo dem ba 3 heures du matin da ngay dem nit ñi di la xaar peuple bi di la xaar te ñu war a xëy dem tool gémmantu ñu ne dañuy toog xaar Madiama Seck ak Fanta Sall taxawaay boobu nag eh, ci laay yaakaar ne ak foo dem ñu ne Madiama lim ñi defal Fanta Sall lim ñi defal mënuñu ko kaa fay lii rek lañ ko mën a fayee dañaa jàlloon ay élection njumte moo indi woon lii njumte googu nag danañ ko rectifier ci élection yi incha allah bi loolu daal li ma ci mën a tënk tout court mooy eh, département bi yëpp jël nañ seen kàddu teg ko ci loxo Fanta Sall ak Madiama Seck mooy gis nañ ne da ngeen def intercoalition ñu choisir ci 46 départements yi ñu choisir ci 16 départements 16 départements yooyu ñu ne euh, coalition sàmm sa kàddu seen électeurs yi mooy seen militants yi dañoo war a voter pour takk wàllu Sénégal Koungheul si la bokk est-ce que def ngeen suffisamment de communication pour wax seen militants yi jour J waruñu voter sàmm sa kàddu même bu dee foofu lañu nekk mais pour des raisons de stratégie dañoo war a voter takk wàllu waaw loolu def nañ ko benn avant avant euh, le candidat di Waagaan Fay euh, di délivrer li nga xam ne moom la doon euh, sàmm sa kàddu jël nañ loolu jël bulletin wallu ne bulletin bi nga xam ne moom la sàmm sa kàddu moomoon bulletin boobu parce que dina ñëw ci urne yi waaye bu ñëwee bu ko kenn laal nañ jël bulletin wàllu bu ñuy njëkk a jël nañ jël bulletin wàllu bi moom la ñuy njëkk a jël nga jël yeneen ñaari ñu ciy teg féetale bulletin wàllu bi ci kaw voté massivement loolu yaakaar naa ne képp koo xam ne bokk nga biir sàmm sa kàddu loolu jot nga ko. bu ñu génnee ci élection yi euh, balaa ñu ñëwaat si élection yi dañu am lu ñuy laaj ci pur ku xam xam na chaque élection dana am mbëbët pour nekk dara ci département bu Koungheul dama ngoon sax ba élection élection yi passé am ngeen conseil conseil municipal boo xam ne pur moo ko fa yebal tey ngeen bëgg ñëw dugg seen biir buy takk wàllu intercoalition bi est-ce que tey ñu demoon ba yeneen élection amaat locale pur nu muy demee day demaat bootuwaat wala da ngeen fas fa yéen yéen ngi préparé seen i dëbës dëbës pour demal seen bopp. non pur du bootu ci gannaaw kenn waaye boot bi dafay tombeek juste li nga xam ne ni mooy njëriñu département bi mooy permettre mu bootu ci gannaaw nit waaye chaque élection bu ñëw pur dañuy jël seen engagement. moo xam dañu am candidat moo xam lu ñu am ci biir département bi dañu koy def ndaxte dama la wax ne la depuis 2017 man mi maa nekkoon euh, candidat départemental euh, bu PUR. man maa ko nekkoon. te kon loolu bu amee yaakaar naa te li waroon ci département bi lépp defoon nañ ko loolu moo ñuy permettre permettre bu ñu demee yeneen élection moo xam local lay doon moo xam yi muy doon dañuy permettre poser suñu kandidaa ba li nga xam ne nii moom la parti bi di dogal wala moom la euh, dëkk bi di laaj parce que tamit soxlawuñu lenn ci biir euh, Sénégal lu dul lu doxal Sénégal kese loolu moo tax a jóg pur lépp loo xam ne ni ci biir DAPA juste département bu Koungheul lépp lu koy doxal bu ñu ko gisee ne xam ne lii moo koy doxal ñun dañuy wëlbati ko waa Pire dañu jël topp ci gannaaw ko pour njëriñu Sénégal njëriñu Koungheul moo ñuy tax a jóg. mu nekk loo xam ne am na lu am solo la mais bu ñu ñëwaatal rek ci campagne bi xam ne jëm nañ ci 21 jour yi ñëw nga ci bilan bi nee nga daal am nga ci lu la jaaxal parce que joxe nga 7 mois tout ça. mais leneen loo xamante ni gis nga ko te war nga ko mën a yokkal say candidat ñoom ñi xam ne ñoom ngeen yëpp tous dimanche bi moom nga war a wote ñuy watal leen lan ngay leen wax ñoom ak ak militants yi xam ne war a wote waaw suñu candidat ñun amuñu laam-laamee ci biir département bi xam naa juste li la ñu yokkal mooy jafe yi nga xam ne ci biir département bi bëri na te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy tee fee euh, assemblée nationale ñoom ñoo ñu ko mën a jooyal parce que loolu mooy rôle bi nga xam ne moom lañ leen tànnee tànnif boobu ñu tànn leen nag euh, département bi coono yi bëri na trop li ñu la ñuy yeb daal ñun euh, ba weerante wuñ ne le 17 bi ñu jëm di dimanche euh, bu ñuy wax soir le 18 yaakaar naa ne waa Wallu danañ zibilé jaar fii incha allah rabi ci kàttanu yàlla. nga wax ne bi na quoi. département bi romb na nooy nooy neb la def képp ku fi nekk di la wax leneen ak leneen day wax lu ko neex. ok mais dañoo gis parti yi bëri na intercoalition bi ñaari keroog ñoo ko nangu fii nii ñeneen ñu nga fële tu Pastef ñu fa nekkoon ba léegi ñoo fa nekk est-ce que loolu tim gisu leen jafe-jafe boo xam ne mën na ko indi ci yéen parce que ñoom nee nañu yokkuñu wàññiwuñu mais yéen da ngeen di waaw xam nga boo xoolee takku wàllu dafa yokk moo yokk. moo yokk takku wàllu dafa yokk parce que biir nekkutoon fa euh, taxawu nekkutoon fa bugaan gee nekkutoon fa. certaines parties yoo xam ne ñu ngi biir ci département bi ñoom nekkuñoon fa mm-hmm. déjà fekkee ne am na lu wàññeekoon ci ñoom dem ci Pastef Euh, lii rempli na ko mooy li jógee ci PUR jógee ci taxawu rempli na loolu. Mhm. ok beneen mbir mi mooy dañu dem ci Ribo ngeen tànn fa Madiama Seck moo nekk candidat bi mooy nekk maire Ribo mais gis nañ fi ko ci mel ni nga xam ne dañu ko xaar tey mu ñëw di jàppale Pastef El Hadj Modou Ndaw nekkoon conseil municipal jàppaloon yoon bi euh, euh, Madiama mu ngi jàppale foofu noonu ñoon def benn jàngat yéen par commune par commune njëkkee ko ci Ribo lan nga ñu mën a wax ci seen taxawaay yéen ñu fa dugg def campagne. boo xoolee Ribo sax defuñu fa campagne. ndax lañ fa def mooy benn mitin lañ fa def te mitin boobu li ko waral mooy benn final moo fa amoon ñu dem teew ji final bi waa dëkk bi ne force danañ defal ma jàmm fi euh, mitin waa Ribo dañuy jël ne Ribo ma jama du fa campagne ñoom ñooy jëlal seen bopp engagement ñoom ñooy futteeku dugg ci terrain bi soxlawuñ ma jama soxlawuñ ko biir Ribo na génn biir Ribo complètement kooku kon dèjà foofu gagné na ko foofu taxutu ñuy wax liggéeyu ma jama nekkutoon biir Ribo 21 jours yëpp ci ci ci yeneen commune yi la ko def waaye deful ko biir Ribo ndax ñi fa nekk dañ jël engagement massivement ne biir Ribo moom ma jama soxlawuñu la fi tey soxlawuñu la fi suba li ñuy soxla mooy demal ci yeneen communes yi fii yaa ko moom yaay borom. commune Koungheul tey bu ñu demee jàmm ak njëriñ bi xam ne nangu du bokk ci intercoalition bi maire bi mooy candi mooy candidat bi président du de départemental mooy candidat bi foofu est-ce que dina yomb ci yéen. non dina yomb ci ñun li mu yombee ci ñun euh, biir commune bu Koungheul. boo xoolee taxawu am na lu mu fi am pur am na lu mu fi am euh, euh, takk wàllu bi am na lu ñu am si biir Koungheul tey tout récemment rek dama jógee ni ci programme moo tax sax heure bi xaw a am tuuti euh, retard mooy fi ma demoon muy Diamaguène 2 li fa dajee rek tey loolu rek dafa doy dafa doy ci Koungheul jërëtoon sax ñuy bousee di dem fenn parce que la fa dajee ci mbooloo tey kenn xamul nu mu toll ci dëkk baduli bii ñu nekk li fa dajee tey kenn xamul nu mu toll kon dëkk bi kenn moomul ko dëkk bi moment bi ñu toll mu ngi ci loxo Fanta Sall pour mu wax la ngay dégg wala keneen di bañ a dégg mi ngi ci loxo Fanta Sall. mais tey Pastef def na commune def na def na démonstration de force de caravane bu mag a mag a mag wane na ñoom ngeen bu la neexee te ngeen woo leen wax leen na leen ji ngeen saa ngeen dem élection parce que ñoom moomuñu ko ko. non démonstration yooyu yàgg nañ ko gis gis biir Koungheul ndaxte euh, da ngay départ ne caravane. xale yu ndaw ndaan ñu yorul carte d'identité ñu yorul dara topp la coow yu topp la yooyu parce que ay détails la rek li am solo mooy ñi am carte d'identité ñoo am solo votants yi ñoo am solo waaye mboo mbooru bi la topp mu leer na la bu ñu toogee le jour yi mënoo am lenn loo duggee ci urne yi doo def dara amul benn njëriñ. ok ku xam sëñ Moustapha xam kook jàmm pur nekk euh, du mën a sax parti politique la mais mouvement bu am solo boo xam ne day woote jàmm saa su ne te élection yi ren gis nañ ci lu xam ne mosuñu ko ci élection. mooy xeexoo yu xuloo yi waxante lu ñaaweeg yooyu euh, te ñu ngi war a jëm ci cappaandaw gi en tant que euh, Mamadou Pouye bokk ci coalition takk wàllu la ngay wax ci loolu ak ban message ngay lancer si loolu. waaw ku xam Serigne Moustapha Sy xam euh, kilifa la kilifa la ci réew mi te kenn du ko lamlaame ci biir Sénégal waxuma sax senegal àdduna bi laay wax moo tax lépp loo xam ne day woote jàmm Serigne Moustapha Sy da koy woote bañ na bu waxee ren ci gàmmu ren bu ko xasee wax. balaa muy waxati déwén la wala ñi muy wax ak message lay wax ak ñoom waaye dootul du génn ak lu mënti kaa xew du génn te lépp loo xew Sénégal lépp mi ngi koy xam kon taxawaay yi nga xam ne moom la taxaw ci biir Sénégal waa PUR taxawaay boobu la ñuy taxaw taxawaay boo xam ne lépp loo xam ne dañuy gis luy tàkk la dañuy fexe fay ko waaye du ñu fexe muy tàkk di jër-jër yi comme yi am nii yooyu piir bu ko fekkee da koy fay waaw taxawaay yi nga xam ne daal am na solo ci biir Sénégal te PUR taxawaay bi mu ci am mooy jàmm la bëgg ak salaam réew mi dal ci jàmm ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay bokk parce que bu ma xeexeeg diw xeexeeg dootu muy sénégalais may sénégalais kooku yaakaar naa lépp lu ci am bu ñu dajee mu gis ma xaañu dana ci rus su ma ko xaañee dinaa rus moo tax pur ne kon loolu yëpp waratul mën a am na ngañ bokk ndey bokk baay lii sénégalais la ñun ñëpp ñoo ko bokk te du ñu mujjee fenn élection yi ga sorewutul dimanche la bët set di lundi ñun ñëpp ñu xëy liggéey ñun ñëpp ñu xëy ci marché yi dajeewaat te bu ñu dajee tey ñu gaañ ma ci wala ma gaañ sama moroom man maay rus wala moom mu rus. lan ngay euh, mujjee kàddu gu mujj gi jaay sa parti wax ak say militant ak say sympathisant pour ñu mën a watal sa liste bi di takkuwal. vraiment di sant euh, département bi yëpp di sant waa commune bu Màkka yëpp ki nga xam ne moo fa nekk di Balla Mbaye euh, liggéey bu am solo def na ko biir makk yëpp dem ba gent parti ci Vasalika noonu ki ñuy wax maire Khoudia Ngat Missirah Wadène ñoom Samba nga dem euh, Fass Cekkeen ñoom euh, Mor Diop ya du ma mën a tudd commune yëpp waaye taxawaay bi nga xam ne nii rafet na te waa PUR di ko liggéey bañ leen bi bu ñuy liggéey VAD ci dëkk bi dañuy sol seen i euh, tiset yu vert wala ñu sol seen foulard yu verte di ko di ko zibilé comme ni ñu koy defee Sénégal yëpp piir loolu mooy ay taxawaayam képp ku mu jox loxo jox na la ko bu ko roccee rocc na ko amatul lenn loo xam ne nii mooy tax mu delloo ci li nga bëggoon mu nekkaat ci parce que du PUR du jaay ngorom du gis lenn loo xam ne parce que bu fekkoon ne ni alal la wala leneen leneen gis nañ ñoo xam ne ni ñu ngi taxaw ci tànk pur pour jox ko loolu te piir du ko def li nga xam ne daal mooy taxawaayam ci biir réew mi mooy Sénégal avancé loolu moom mooy taxawaay le président euh, Serigne Moustapha Sy taxawaayam yépp ci biir Sénégal mooy Sénégal avancé comme yeneen yi ni ñu taxawee ñun tamit li suñu taxawaay ci département bi mooy département bi avancé ak na tënkaa nu muy avancé na tegu ci ay loxo yu set loolu daal mooy taxawaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ma jama ak fant ñooy loxo yu set yi loxo yu set wecc lañ parce que amul benn taas boo xam ne mi ngi sañ euh, takk na sañ loxo yi dara taasut ci ñoom ban bulletin nga bi ñuy voté yaakaar naa ne Sénégal yi miin nañ ko bi ñuy wax euh, beige marron bi beige bi moo ëpp marron bi léegi beige boobu boo xoolee photo Macky Sall mi ngi fa ak euh, benn bopp fas mi ngi foofu taxawaay bi daal loolu bulletin boobu lay Sénégal yëpp war a voté wala département bu Koungheul moom la ñuy voté parce que bu ma ne Sénégal yëpp am na foo xam ne tey boo fa demee représentant pur doon na fa candidat te jàmm njëriñ moo ko war a voteel moo tax dama ne département bu Koungheul bulletin bi nga xam ne moom la Macky la nekk bopp fas bi nekk fi moom la ñuy voté waaw ñu conscience bu baax a baax a baax def taxawaay bu ñu bu ñu def loo xam ne nii lii bu ñu ko bu ñu ko voté ba pare 5 la jëm te 5 yoo xam ne bu xasee am amatul réccu amatul dellu gannaaw kon daal taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci am mooy loolu. bu mujj bi lan la. kàddu mujj gi di jaajëfal ñëpp di kontaan ci yéen waa xibaar bambuk euh, euh, li nga ñuy doxalee am na solo trop parce que Sénégal yëpp ñu ngi kontaan ci wala adduna yëpp ñu ngi kontaan ci yéen à travers li fiy jaar vraiment lépp loo xam ne ay la ci biir département bi yéen a ngi taxaw pour mu fay tout récemment ñu ngi ko dégg jaar yooyu yëpp taxawaay bi nga ci taxaw rafet na trop vraiment ñu ngi kontaan ci bu baax a baax jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm baax itam di la sant di la ñaanal yàlla li des ci campagne bi ngeen mottali ko ak jàmm le 17 incha allah ki xam ne moom la yàlla may ndam bi jaaraat ci sant ak gërëm militant mi xam ne ñoom laa àndal kon jërëjëf sëñ Mansour.